sax xaw nga ci brosser ci euh, lamin mhm. euh, la mu wax mooy que ni euh, du ñu seetaan benn yoon Bassirou Diomaye mu ah wet ci liggéey bi parce que mhm. tamit mhm. projet bi Ousmane Sonko moom moo ko njëkk a porté jàpp naa ni tamit bokk na ci ñi gën a maîtriser li nga xamante ni moom moo di projet Pastef boobile en tant que premier ministre aussi dina mën a ndax dina mën a maanaam xam nañ ne suñu suñu régime bi ñu am régime présidentiel la ñu yor président moom mooy définir la politique de la nation gestion. Mhm. peut moom dafay coordonner rek. est-ce que du soxla tamit ñu gën a dooleel le le premier ministre bu ko defee euh, mu mën a amal euh, liggéey yi nga xamante ni bëgg nañ ko comme ni ko Ousmane Sonko waxee ak ak projet bi. Mhm. comme dañu diggoon Sénégalais yi tamit euh, ne leen dinañu wàññi fexe wàññi doole yi président de la République. Mhm. bu ko defee est-ce que duñ ko mën a toftal toftal waaye toftal. ci premier ministre bu ko defee mu am doole mën a mën a mën a liggéey. xam naa sûrement euh, euh, noonu lay demee parce que nekk na euh, benn point bi nga xamante ne waa PASTEF ñoom dañ ko dañ ko fulaal parce que ñoom boo xoolee ci seen campagne bi ak depuis ñu commencé opposé wu ñoom daal dañu jàppoon ne doole président de la République fii ci Sénégal dafa jéggi dayoo. Mhm. il faut que ñu décharger ko yenn charge ngir bu ko defee mu mën a am. pas-pas wala boog mun a am Pastef daal di mener à bien sa sa, sa mission euh, même bu fekkente ne euh, euh pratiquement gars yi euh, defuñu ko mais xam naa ne théoriquement. Mm -hmm. tout ce qu'il va proposer à Diomaye fay on peut euh, présager que dina ko accepter parce que nekk na li nga xamante ne ñoom ñoo ko xeexandoo ñoom ñoo ko toggandoo donc lépp lu Ousmane Sonko mën a porter comme projet bu excès au niveau de la présidence je pense que Diomaye Faye sera le premier à à à être mm-hmm. d'accord et sera le premier gouvernement ci boppam. Mm-hmm. proposer ko. waaw Diomaye Faye mu mu mu approuvé. d'habitude ça ne se passe pas comme ça. ça bi daanaka moom moo doon fal gouvernement bi yëpp. moo doon fal gouvernement bi dañ koy nommé nañ la gouvernement déjà on l'a déjà donné une de gouvernement yi xamante ne moom bon da koy ñëw rek euh, wax on moom moo ko def or que ça vient euh, du président de la république fii daal gis nañu sens contraire la. Mhm. te gis nga liste bu Sonko di wax ne da koy jox gouvernement moi je peux euh, jurer que la liste. a été déjà discutée à l' interne entre ñoom avant mhm. ñu ñuy dem élection présidentielle. Mhm. parce que Sonko ci dernier jour campagne bu mu demee bay wax ni euh, bu leen yaakaar ni bu ñu yàlla may nguur gi. en fait waaw dañ ay cëru lay doon quoi ay nguuru cëru non non non non ça sera le mérite la compétence mais aussi la probité Mhm. ñetti terme yooyu maanaam mhm. ki nga xamante ne dafa mérité toog ci poste bi ki nga xamante ne am na xam-xam pour jiite poste bi waaye tamit ki nga xamante ne loxoom dafa set wicc kenn mënu ko euh, duut baaraam ci ay euh, ay njuuj njaaj wala ay détournement le fond wala ak euh, leneen li nga xamante ni ñii ñi dañ koy ñaawlu donc dina nekk gouvernement bi nga xamante ne man je pense que la liste est déjà prête mhm. donc tey à quinze heures formalité rek lay doon quoi day ñëw liir waa wax naa ñii nii jox naa ko Diomaye et finalement Diomaye nangu na li te ne moom laa ko proposé comme ossature gouvernementale bu ko defee ñu mën a euh, jublu ci liggéey parce que ñoom wax nañ ko on a plus de temps à perdre folklore bi campagne bi loolu yëpp mu ngi suñu ginnaaw mm-hmm. léegi maanaam il faut montrer aux Sénégalais pourquoi vous avez décidé de nous donner vos voix euh, euh vos cartes parce que lii la lii la lii la lii la il faut que tàmbalee gis lu ñu koy waxee li prémices du changement les prémise de la rupture bi nga xamante ne eh, proposé nañ ko jaay nañ ko ñi euh, ñii di sénégalais yi mm-hmm. donc je pense que ni fii euh, quinze 15 heures euh, dinañ am lu ci leer waaye tamit ci beneen fànn ñi nga xamante ne déjà commencé nañ di xalab lii Sonko def wala boog ñuy naan am na ay nit ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci système bi jalaat na leen lool je pense que c'est une opposition qui est qui est déjà dispersée. ñoom mhm. fu mu nekk nii lan moo naroon nekk seen ta parce que ñoom lu ñu fi def mu ngi nii ni tege barki Dembo Ndiaye ñëpp bay nañ ci xel donc mënoo ñu ñëw automatiquement bëgg porter benn combat d'opposition je pense que ñoom d'abord lu ñu war a def mooy maanaam seen cuisine interne. ñooñu la waaw opposition bi. nañ def seen waaw nañ def seen cuisine RTL ba pare balaa ñu naan dañuy attaqué li nga xamante ne euh, moom la fi Diomaye teg. Diomaye lu mu tegagum euh, euh, de cabinet la fa teg benn premier ministre aide de camp. ak secrétaire général di pare ñoom déjà mhm. commencé nañ di attaqué loolu naan waaw il avait dit qu'il allait rompre avec l'ancien système nous voyons qu'il fait toujours avec le même système. donc loolu defe naa ne ñoom dañuy yaanu perte de temps la ñoom fu mu nekk nii seen la ñu war a def. Mhm. parce que jox nañ leen réew mi pendant 12 ans ci 12 ans yooyu am nañ ay acquis certes waaye mais boo xoolee tamit ci lu ñu laaj defe naa moo gën a bëri mooy maanaam euh, la réduction des libertés individuelles li nga xamante ne mooy chômage jeunes yi di gën a yokk mm-hmm. immigration clandestine di gën a yokk et pourtant les moyens étaient là pour freiner euh, tous ces fléaux là donc pourquoi ils n'ont pas réussi à faire ça ñoom yaakaar nañ comme qu'ils ont fait échec daal automatiquement ñu leen wuutu tamit dañu war a def échec non il faut pas euh, réfléchir en ces termes là je que ñoom ils gagneraient beaucoup ils gagneraient beaucoup à rester d'abord à l'écoute s'ils peuvent apporter contribution bu ñu munee indi seen doole bu ñu munee indi seen xam-xam ngir réew mi jëm ci kanam je pense que ils seront les bienvenus ñu nekk ci pouvoir bi loolu la leen wax. Mhm. ñu ne beddi ñu benn sénégalais sénégalais bu mënta ñëw nga seet loxo sénégalais bu mun mënta ñëw. am xam-xam bëgg sa réew. Mhm. boo ñëwee ñu dinañ liggéey yow. donc euh, di teel a sànni nii xeer te yoo xamoo xeer boobu fu muy dal est-ce que dina def effet am déet man je pense que loolu perte d'énergie kese la donc je pense que fu mu nekk nii euh, la balle est dans le camp de ñi nga xamante ne ñoo yore pouvoir bi urgence ak priorité li leen di xaar bëri na lool ñoom il ne devait même pas répondre defuñu ko sax. tontu ñu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bande tuuti di leen sànni xeer. bu mm-hmm. mu nekk nii focus sur quoi focus par rapport à ce que nous avons vendu aux Sénégalais au projet focus sur comment faire pour réaliser ce projet mm-hmm. sur le terrain. Mm-hmm. Euh, euh, tamit ñu ngi doon wax tamit euh, l'aura wala bokk le déclic que l'avènement du PASTEF wala l'avènement des antisystèmes au pouvoir au Sénégal impacté ci pays sous yi comme ni ko Baara waxee sànq boo seetaanee en fait les média étrangers maanaam médias yi nga xamante ne ñoo ñuy wër mais le Sénégal est cité en exemple Sénégal est cité en exemple africain yi. Mm-hmm. dañoo jël maanaam victoire bu sénégalais am ci kaw système bi ñu def ko ñoom seen moomeelu bopp. Mm-hmm. ñu ne sénégalais nu ñu def ba réussir loolu seen réew.

ni dañu ne il ñu ñëw à lekkool du Sénégal ñëw jàng ci sénégalais lu ñuy def ba réussir seen mission. mais secret euh, comme ni ko comme ni ko Badio Camara waxee. waaw euh, euh, secret bi moom mooy carte bi. bi waaw loolu voilà et puis ils ont pris un exemple. parce que ñoom ñoom ñooy fal pôle bi <laughs> am na am na benn influenceur ah camerounais bu mm. nekk France mooy jour élection yi. Mm. mu di jël ay images la communauté sénégalaise qui allait voter mu ne vous voyez les Sénégalais. Quand il s'était, quand il s'agit de se battre, ils se sont battus, mais actuellement, on parle d'élection, ils se sont tous mobilisés pour aller voter. Ah oui. Donc, en Sénégal, euh, en Afrique du moins, les, les, les, changements démocratiques les plus concrets se font à partir des urnes. Mm -hmm. Donc, il faut que Camerounais, les Sénégalais, inscrivent massivement qui liste électorale, nous avons des Parce que, euh, c'est vrai que l'élection euh, est passée, mais nañu nañu gën a nañu gën a renforcer gën a gën gën a xoolaat fichier parce que il paraît que am na ay lim bu takku ci ay jën yi nga xamante ne bëggoon nañu voter mais ils n'ont pas pu voter ils n'ont pas pu voter donc cela veut dire qu'il y avait des manquements quelque part mm-hmm. kon fii daal nañu fexe daal ba xoolaat li nga xamante ne mooy fichier électoral bi gën a inciter sénégalais ñu gën ci mën a inscrire ngir bu ko defee bépp élection bu amate fii ci sénégalais le sénégalais au moins à cinquante plus quelque pour cent iront voter mm-hmm. pour exprimer leur voix Donc je pense que c'est tout à fait euh, normal. Donc le Sénégal a donné une leçon à, de démocratie à toute l'Afrique, a donné une leçon de démocratie au monde entier. Mais il va falloir que ñu dem conserver modèle démocratique boobu gën ko mm-hmm. parfaire gën ko parfaire gën ci jokk li nga xamante ne mooy garanti ak sécurité ngir bu ko defee lépp luy ñëw ci wàllu wetam fii ci Sénégal kenn du am dara loo ci laam-laamee léegi supposons que ne que élection yi amoon na contentieux mm-hmm. amoon na contentieux post électoral kon ba tey jii gars ñu ngi ci werante bi yaa def lii kii gañe na fii gañul fii mais xam nga jeu bi bu leeree daal bu leeree daal du am benn jafe-jafe moo tax amul benn contestation mm-hmm. moo tax nag euh, ñii di waa système bi l' actuel système je veux dire mm-hmm. actuellement je pense qu'ils doo les pleins pouvoirs pour dérouler normalement leur programme mm-hmm. parce que sénégalais yi desewuñu leen dara jox nañ leen lépp premier tour lañ ko fal coow amul dara amul ñu ñëw passation de service tamit ñëpp rafetlu li nga xamante ne xew na fa léegi li ci des mooy maanaam xar seen tànk tubéy ci li nga xamante ne mooy soxla sénégalais yi mm-hmm. te yaakaar naa ne gouvernement bu ñuy fal tey sa ngoon ci mm-hmm. ci loolu rek lay nekk d'accord ci gouvernement boobu la wax euh, kebe euh, euh, ñu ngi koy xaarandi fii mm-hmm. ak ñetti waxtu ci ci ngoon ana ban genre gouvernement la ñu war a am pour ci jamono ji nga xamante ni ci la ñu ci la ñu nekk parce que dégg nañ fii ak Macky Sall mhm. gouvernement d'attaque gouvernement fii mhm. dugg na fii gouvernement tey ban gouvernement la ñu soxla tey boo xam ne si ni tey eh, dañu koy eh, tab bu tey suba ñu daal di sumb sumb ci liggéey ci liggéey. ñoo xam ne dañuy ñëw fa yéene doon ay Baye Fall rek Baye Fall. Baye Fallu askan bi waaw Baye Fallu askan bi takk seen i ndigg. Mhm. wàcc ci terrain bi muyee la maillot. bu ñu ko defee xoolal facilement Sénégal yi déjà am nañu ko commencé ba pare dañu leen ci fekk si. mais bis bu ñu dikkee euh, bëgg a reprendre comme la fi amoon mooy euh, ministre yoo xam ni dañuy da ngay sax commencé sori sa askan. doo dem sax fi nga xam ni fa la jafe-jafe yi dëgg-dëgg nekkee loolu bu buñ ko defaati rek da ça pose problème te yaakaaruma ni gis nga Ousmane Sonko démb mi ngi ciy insister et c'est mm-hmm. extrêmement important. Mm-hmm. mu ni euh, liggéey lañu wax waxuñu nguuru xam nga loolu ñaar yooyu def c'est différent nit ki man nañ la fal ngay nguuru te doo liggéey. Mhm. mais parce que nguuru sax mënta ànd ak liggéey. déedéet nit ki bu ñu la falee dañu la fal pour que nga nga nga liggéey yaakaar naa que ni man man euh, falu wala ñu tabb la dara responsabilité bi ci nekk ak ni mu rëyee ku ko xamoon yaakaar naa ne bu ñu la tabbee dara wala ñu fal la da war a fanaanee jooy wala nga yend koo def mais doo të të tëgg ka saraxole tey ñun sax fi mu ne nii. suñu borom daa mel ne dimbalee gun nañu ci loolu parce que ñun li ñu fi nemee kon mooy bu ñu la tabboon ministre wala dara ngay gis ni say mbokk dañuy commencé tëgg di saraxale mm-hmm. parce que jàpp nañu tekki nañu mm-hmm. ñenn ñi commencé ñi la woo say jege ñaale parce ni yow dem euh, nga xam ni te pourtant fa nga jëm yow moomoo ci dara dara dara dañu la dénk ba pare am lu ñu war loolu ak yow xam ne chaque fin du mois ko war a jox léegi nag à loolu doonu leneen loo fa jël sàcc la tudd càcc mm-hmm. gu leer nañ léegi nag puisque ñun moom euh, Sénégal dafa amoon sàcc civilisé ak sàcc yoo xam ni ñoom la yàpp nii rek di leen jàpp. bu boo jàppee ñi. des voleurs et rafetal ko c'est un voleur. sàcc la sàcc la ay sàcc lañu. dañ koy rafetal dañ <laughs> dañ sàcc am xaalis lañu. <laughs> xam Sénégal moom léegi nag il faut que loolu mu jeex Ousmane Sonko ba pare rek sa ay loxo set maanaam say yoxo set nga xam ni da nga nekk nit koo xam ni mafus gis nga man sama téléphone bii su ma demoon ba koy dénk mais dama koy dénk ku ma wóolu mhm. koo xam ne leer na ma naññ ni heure bu ko soxlawaatee su ma demee ci moom mu delloo ma sama téléphone comme mais nag du ko delloo rek yam ko ci mais dama koy delloo comme na ko joxe woon voilà wala sax mu mu mu entre na mu mu koy entretenir moom mhm. su nekkoon ci man mën naa ko bañ a entretenir noonu mhm. loolu lañu soxla eh, ci gouvernement bi nga xam ne moom la ñu war a tabb yeste jomaay bi ma gis gis nga gis nga président xale ñun dañu tàmm naan noo amul expérience euh, parce que dañuy tàmm ay magget président yoo xam ni mais liggéey liggéey dëgg-dëgg yaa ngi ko mën a defee ci sa diggu doole. bi nga nekkee xale dëgg dëgg dëgg mais liggéey ci bari bari ci nga ko mën a defee ñun kay instant bii nii comme que dañu xam nga mag moom li mu man mooy toog ci kër gi. Mhm. dañu daan am président yoo xam ne ay mag lañu lu ñu mënoon mooy toog ci kër yi rek. di mhm. wax nii nii nii am nañ président boo xam ni. xale la comme tout le monde. waaxuy dëgër kay. waaxuy dëgër ca kaw ga la gis nga <laughs> sawar na. am na rapidité. <laughs> kooku fu mu bëgg a dem mën na fa dem. <laughs> fu mu bëgg a taxaw mën na fa taxaw. Mm-hmm. kooku yaakaar naa que ni pour mu liggéey mais pour mu takk euh, ndigam doon bàyyi xel askan bi dina wane yomb te déjà commencé na ko wane mooy que ni euh, nañu nañu jublu ci li nga xam ne moom moo di les urgences maanaam nañu fexee wàññi. Euh, chômage bi ndaw ñi commencé am xëy nañu wàññi dundu gu seet gi nga xam ni instant bi sonal na Sénégalais yi trop trop trop fi mu ne nii xam naa ne borom kër yi ci bare bare bu tëddee dootuñu ne ndax Korité baa ngi ñëw. Ah, xale yi ñu ngi ñu ngi ñawlu fii. war a jënd dàll ci yaay ak la nga war a def ci jouru Korité ba loolu dafa métti mm. métti goo xam ni tey boo wàññilee ñi nga xam ñooy chef de famille mais lenn yu ci bare bari ñooñu dinañu la sant euh, moo tax ba pare gouvernement wax ne Ousmane Sonko moo ko jiite. boobu mm-hmm. gouvernement yaakaar naa que ni bu bu yaakaaru la. boo xam ni man mm-hmm. nañ ci xaar. ñu mën nañ ci séntu rigueur parce bu am solo surtout waaw ñi mos liggéey ak ñoom moom ci eh, impôt et domaine nee nañ ko en tout cas ku am ku rigoureux la. ku la ku jox ak liggéey. liggéey surtout je pense que su fekkente ni moom moo la jiite ci wàll boobu. Mm-hmm. Eh, je pense que dina la dina la eh, piqûre loolu nga xamante ni moom moo di rigueur boobu. mais loolu la inculqué Diomaye mhm. xam nga ñu bari dañuy yàpp ni Diomaye maanaam dafa nekk mhm. yi bari la ñu xamul Sonko ak Diomaye des fois dañuy defante nii mhm. wute ay idée ay idée ñu waxtaan bu juboo nañu ni voilà mën na ñëw gën bu Ousmane Sonko gars yi bari bari ñoom loolu lañ xamul. Mhm, loolu mhm. moo tax ñu bari danañu trompé wu ci en parce que jàpp naa a am solo lay doon que. Euh, non premier am foofu benn benn dualité bu métti parce que mhm, euh, euh, kii dafay définir politique bi kii doxal ko rek. doxal ko je pense am problème ah. c'est ça waaw waaw nañu ko nañu ko nañu ko bàyyi nañu ko bàyyi rek moom Ousmane Sonko premier ministre bi mu mu def li mu war a def président bi war a def li mu war a def je pense que suñ ko defee tamit réew mi dina ci. dinañ ci gis njëriñ. bu bu baax a baax nit ñi ñooy commencé di xalaat ay tiraillement am ci seen diggante ak affaire yooyu mais pour man. yaakaaruma yaakaaruma mu am fa quoi. xam nga boo xoolee man Ousmane Sonko démb dama ko jàngat mi def discours. Mm-hmm. mais boo xoolee kanam gi da xam que ni kii nii. Tito Sang kani moom xam na intérieurement xam na li koy xaar. Hmm. maanaam doo ci sentir que ni kanamu mais doo ci sentir que ni kanamu. kuy sar xolle la du question ci kanam bi daf ko wax sax. daf ko wax mu xam nañ ñi xaar sénégalais yi duñ leen may dara. dara fii ak juróomi at. Hmm. la fan la ñuy jëlee réew mi ak fu ñu ko yóbbu. bala ñu egg ci juróomi at sax. Hmm.